min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barke Seexul Xadim bokki jullit yi bokki taalib yi ñoo ngi leen nuyu nuyu bu sell ci sunu xol jëlee ko ci sunu kilifa ci sunu yaakaar tey ak ëllëg sëriñ Bara Mbàkke xalifa sina dëmbër bu ñu leen nuyoo ba noppi nag bala ñuy jàll ci wax ji dañ leen di balu xaq yéen ñépp kenn ku ci nekk mag ak ndaw ndax war la sama digg ak yéen man man nag mënumaa topp kenn ndax ndax mënumaa mënumaa amel kenn àq ndax man dama amel ñëpp àq kon nag ñoom ñëpp lay bala ma bëgg ngeen jéggal ma baal ma àq ci sama digg ak yéen ci lépp loo xam ne jaar naa ci ak yéen ci loo xam ne neexu leen wala ngeen def ay taq-taq wala ngeen def ay ngoru ngoru ci seen xel maa ngi ñaan ci yàlla ay yonent bi Sëriñ Tuubaa Seexal Xaadim ngeen jéggal ma loolu bu loolu jàllee nag woote bi man maa ko waral ci ndigalal sëriñ Bara Mbàkke xalifa général des mourides maa ko def ci ndigalam li la waral woote bi nag laa leen bëgg a leeral yàlla daa dogal ma nekk ci as ndiir tàmbalee ko ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké 1978 mu jox ma ab liggéey mu jëm ci tubaab ma nekk fi ànd ko ak yéen ngeen def li ngeen man ak li ngeen mënut ba sëriñ boobu wàccub liggéey mu yóbbaale suñu ngërëm ma di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla leer yàgg ci boppam lu ànd ko moom ñu jógee ca Seex Abdu Xaadir Mbakke xalifa général dénkaat ma loolu ci coobareem ak baaxam mu nekk fi diir bu gàtt ma ànd ko ak yéen mu dimbali nu yërëm nu jéggal ba yóbbaale sunu ngërëm ñu di ci sant yàlla bu baax mu jógee fi Seex Saliou Mbàkke di seen rek jëlaat cër boobu yébbal ma ko ma ànd ko ak yéen nuy dem ba Serigne Saliou Mbàkke bàccub liggéey yal na yàlla du leeram yàlla na yàlla dolli seen yar ñoom ñett ñooñu te yàggal na fi mu nekk ci seen ndigal ba ban leen di fekki bi ñu jógee nag ñoom ñooñu di ay waajur ñu jeex ba nga xam ne doomi seexal xadim nekk ci sët bi mag ci sët yi di seex Amadou Lamine Bara Mbacké moom Serigne Fallou di xalifa général de Mouride toog biir bu gàtt rek noonu waajuram ya defoon mu woo ma def ko ci man muy lu rëy ci man nag may sant ñoo ñuy weesu di leen gërëm di leen ko seereel di ko seereel moom mi fi nekk ñoom ñi jàll li ñu def ci man seen cant seen gërëm seereel naa ko allah ji baaraam mu teg ci seen loxo mu wëlbatiku nag moom mi nga xam ne moo fi nekk te foofu liggéey bu rëy bi teg ko ci sama loxo ma sant ko beral ko ngërëm loo xam ne lii faw rek ngërëm di nekk ci sama xol di nox noxi di gañ-gañi ma bëgg ñu nekk ci seen xol ngeen jàppe ko noonu ñaanal ma mu yàgg fi ci suñu kanam te weer dara la ma defeelu ndax man na bu waajuram yooyu yi demee ma nekk fi ànd ko ak moom man naa xool ci man leneen lu teg ma fi ndax fii ma toll ak fi ma jaar waaye mayit buur ko nag moom mii ni mu wax ak ni ma xam ci moom kenn jaralatuma teg dox ci liggéey bi waaye moom jaral na ma lépp nag feeg waa ngi dund lu ma wax ma def ko lu ma lu ma def noonu danaa ko def lu ma sant ma def ko ànd ko ak yéen may ñaan nag bëgg liggéey bi nga xam ne yi teg nañ ko ci sama loxo mu wax ko ngeen dégg ko mu réew dégg ko bi dégg ko yéen ñi nga xam ne dañoo ànd lu yàgg bu ma mënee dox ba egg si fii muy rafet yéena mu fabaat ko teg ci seen loxo ngeen jàppale ma lii yaakaaram lépp yàlla def ko te nu ànd ko ak moom man day sant naa leen gërëm leen yéen yi nga xam ne dama ànd nag yéen da depuis soixante-dix-huit ba tey maa ngi ànd ak yéen ñu fi di chef de village ñu fi di concétable yor naa commune tamit fukki at ak ñett yor dëkk ba léegi sii kenn ku ci nekk la mu fa ma féete woon xam naa ko bu baax ñi fi nekk di ay kilifa di homme d'affaires di ay lijjantikat ñu mu doon kenn ku ci nekk du ma cité ay tur waaye damaa xam ne mënu ma ko ñàkk wax ñu dugaay ñoom ñëpp sant naa leen gërëm leen di ñaan yàlla yàlla yàggal leen fi yàlla yàggal ma fi te yàlla yàggal fi kin fi teg ginnaaw bu ma waxee loolu nag li waral waxtaan ci cantam ak gërëmam moom Alaaji Baara damaa bëgg nag ñun ñëpp nu maase ànd ci lii ma yan nu ànd yeneen ko téye ko téye wu leer te yéen wu dër tedd li sunu der tedd li sunu laxasaay ba lépp loo xam ne lii war naa doon ab liggéey bu nu def mu ba mu bañ a ngi ci moom kenn ku nekk fa nga nekk na nga def sa laxasaayu bopp def sa soldaaru bopp ba moom li nga xam ne li féete na ko ak boromam mu nekk ca ba daal du ko ba daal du ca yàqal ci sunu sunu warte ci gàttal nag li nga xam ne li war naa ko xalaat lépp sëñ Moustapha Bakki bii nga xam ne collectif moo moo nekk secrétaire général bi di porte-parole bi waxtaan nañ ci lépp loo xam ne ni génne na ko ci wax ji ma dégg ko ngeen dégg ko nu jàppe ko noonu te defee ko noonu te xam ne sëñ Touba day amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am sëñ baare mii nañ ko noppal ndax mooy tax mu noppalu sëñ Touba da ko fi teg dugg ci biiram lii la sëñ Touba la muy waxal moo nekk ci biiru Alla bara ndax tegu fi boppam mandarga nit moo di fii nu toll liggéey doo nga la nu yaakaar nawet bi fi ngi tàbbali ñun dara xel ci nawet bi ci moom seen na yàlla na ay te jàll ndax noonu nag caaxaan waye dëgg des liggéey na noom ak jaamu yàlla liggéey na képp koo xam ne kii ma nga la ci jàppale di dal sa xel di nga xamee ne toog na ba mu daatal wax dafa ni yéen taalibe yi maa ngi ñaan xam ne taalibe yi nu woonu fi bàyyi maa ngi ñaan nag nu ànd liggéey topp bay yi dañu war a bayee te yaakaar yàlla ci ndox mi ak barke bi loolu ba mu ko waxee rek loolee baawaanan ba fii nu toll ku xool nawet bi ñoo ngi ci juróom fukki fan yi dabraan ak ñett fenn fu tooyut amul ci Sénégal loolu nag tawféex la joo xam ne ji nan ko jàppe noonu sant te gërëm sama kàddu mi ngi ci sëñ Moustapha lépp loo xam ne li wax na ko ci rek nga dégg ko ni mu ko dégg tan jàppee ko noonu ba léegi ci biir rek